salaamaaleykum mbokk internet di maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di leen wax ne man maa ngi tudd Souleymane Diallo di responsable au niveau de l' académie Beaux Arts sécurité donc euh, ñu ngi nekkoon sunu fin de troisième mois sur la sécurité rapprochée donc euh, ñu doon décerner élèves yi seen diplôme ak seen carte professionnelle donc c' ça donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant élèves yi di gërëm élèves yi. participants yi moniteurs yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp en particulier Ousmane Sall ak euh, Mohamed Moustapha Ngom donc parce que pratiquement ñoom ñoo nekkoon les principaux moniteurs ak man Souleymane Diallo donc euh, vraiment euh, formation bi sa a été bien passé ça a été bien fait aussi et que vraiment élèves yi aussi ñun loolu lañu fi nekk académie Beaux-Arts fi nekk pour au niveau de Guédiawaye pour former les le jeunes surtout les jeunes sur la sécurité rapprochée les jeunes filles les jeunes garçons Donc on est ouvert à tout le monde. Et puis euh, voilà, on est là daal si gàttal. Formation waaw formation bi à duré trois mois c'est tous les week-ends tous les vendredis samedi dimanche donc euh, en principe c'est à trois mois trois mois deux semaines maximum. Euh, benn formation bi la parce que formation secrétaire rapproché amul góor ak jigéen on considère tout le monde des hommes donc et on les forme comme des hommes aussi vraiment. bon xam nga sécurité moom ku ko wax kenn nit ku nekk da nga war def sécurité parce que sécurité mooy lan mooy sàmm aar sa bopp ba pare soo ko aar keneen donc boo defee sécurité di nga mën a aar sa bopp yow ba pare aar sa famille aar képp koo xam ne vraiment dafa dafa dafa bokk ci yow bon ñun nag sécurité bu ñu def mooy sécurité rapproché sécurité rapproché bu ñu ko waxee mooy euh, ki nga xam ne dafa dafa dafa dafa dafa xelam dafay màcc ci sécurité euh, di former ay nit pour la sécurité euh, voilà ci domaine boobu la ñuy la ñuy gën a yëngatu parce que qui te ko wax VIP donc te ñoom ils ont été formés pour ça mais d'une manière générale tout ce sécurité laal nañ fa mais li ñu gën a accenté wu mooy la sécurité rapprochée. donc voilà donc bi mooy euh, sunu troisième promo. et formé nañ fi premier deuxième promo di ko ak ay stage yu def au stage niveau national niveau international yu ñu fi def yëpp donc bi mooy suñu troisième promo ñu ngi préparé suñu quatrième promo incha allah. chaque voilà ça dépend on commence minimum par quinze élèves quinze élèves donc premier promo on était à vingt cinq deuxième promo la même chose troisième promo on était à quinze vingt. donc par rapport ak ñi commencé seen formation au dernier moment amatuñ jot ñu. c'est pour trois mois deux semaines maximum c'est tous les vendredis samedi dimanche. donc pour euh, ñi nga xamante ni bëgg nañ def formation garde rapprochée lan lan nga leen di wax ak tamit yan euh, ñu bon ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a def formation secrétaire rapproché ñu ngi invité tout le monde tous les jeunes ñu leen di invité pour ñoo def formation secrétaire rapproché parce que Sénégal ñu mu taxawee actuellement. Euh, lépp lu ñu fi tudd ci insécurité je pense que def sécurité c'est très normal pour un jeune même boo ko deful pour liggéey kenn mais nga def ko pour mën a aar sa bopp aar sa famille donc ñu ngi invité jeunes yëpp vraiment ici à l'académie Beaux-Arts sécurité ñu ngi leen di invité ñu ñoo def formation la porté est pour tout le monde formation bi c'est euh, en fait boo ñëwee dañu nañu waxtaan ba juboo rek waaw parce que bëgguma tudd ay montant fii mais l'essentiel mooy nit ku bëgg a bëggee ñëw allah dinañ d'accord ci condition ci ci lépp ba vraiment mu mun def formation en temps normal euh, jot carte professionnelle ak diplôme à partir de ban âge euh, boo majoré rek képp ku majoré rek euh, on est boo màggatee mun nga ko def. parce que dans la tête du doole secrétaire approché du doole soxluñ doole soxluñ ko mais li ñu soxla mooy xam-xam xam-xam ak technique lañ soxla parce que boo nee secrétaire approché wax xam-xam ak technique. parce que secrétaire approché mooy lan mooy c'est la prévention la prévention c'est quoi du doole du muscle. la prévention c'est dans la tête merci. salaamaaleykum man la Ousmane Sall nekk académie Beaux Arts sécurité nekk fi moniteur préparation physique quoi. fii moom li fi nekk rek moo di ñëw pour jàng parce que ñi fi ñëw ñëpp ñoo inscrire pour jàng bu ñu mënoon duñ fi ñëw quoi mais ñun ñu ñu fekk ji ñun ñu xam dañuy fekk si ñun ñooy ñëw fexe ànd ak ñoom xool ba xam ñii lan lañ àttan ak ñu àttanul mooy li sama kilifa gi wax rek parce que man Me man Diallo moom ma formé ci karaté. formé ma ci secrétaire projet ba fi may liggéeyee tey moom fa yóbbu ma fay liggéey quoi mu doyloo ma ci branche su secrétaire projet ak wàllum karaté quoi ba tey bi accompagne tout le temps ci sama wet su ma neree juum mu ne ma noo nii ak nii la quoi ba tey damay jàng ma élève laa ci biir académie beaux arts sécurité waaw formateur bi nag non affaire ñu formé élèves yi premier élément amuñu benn problème parce que ku fi ñëw da ngay nangu quoi fi ñëw que dañuy ànd ak yow naxante ak yow parce que yaa jàngal ba nga jëm maîtriser lan mooy sécurité rapprochée waaw parce que sécurité rapprochée parce que ñun dañ dañ yor armo mais li ñuy jàngale mooy sécurité rapprochée arme moom am na nit ñu koy yor à tout seeni liggéey mais li ñuy gën a concentré wu ci suñu bopp mooy naka la ñuy mën a jàngee self défense ba nga xam ni bu génnee jaas yi sa loxo ngi mën utiliser pour mën ko nangu bu génnewee paaka tamit noonu bu génne yett tamit noonu quoi arme moom loolu dernière position la quoi mais fi dañ fiy jàngale lépp nag quoi. waaye parce que ñun ñu fi nekk dañuy jàng di jàngalaate quoi te ñu ngi jàng yeneen ci yeneen ci yeneen branche tamit pour mën a jàngale naka mooy protection secteur projet mais liñ fi gën a jàngal daal mooy fexe ba nga am xam-xam bi ba yow képp koo xam ne laa déclenché jaasi muy pa lu mën a doon ba nit daal lay doxe ginnaaw jàpp la nga xool noo ci fexe ba génn ci quoi ci xam-xam nag ak technique. waaw ñun ñun ñu leen di former ñun ci loolu la ñuy yëngatu man damaa jàpp ni ku ñëw académie Beaux-Arts di ñëw pour formation boo génnee amul benn VIP bu lay jaaxal ci nga liggéey ak moom loolu la quoi. ci boo xam ne dañ la koy jàngal man ma ba formé la ba nga génn ci école bi amul benn VIP boo xam ne mi ngi ci àdduna fii nga ko war nga war ko liggéeyal di hésité loolu amul man si ñëw ma loolu ak yow su ma paree ci boo génnee fii benn nit ngay doon. ku la ku la woo liggéey di nga ko liggéeyal te dina kontaan ci yow parce que ma def ci yow xam naa ko ko oui. oui formation complète amul dara lu ñu leen di bàyyil ci domaine sécurité yëpp nag ba ci droit bi nga xam ne sax moom war na xam moom fan la droit am yem ci ci ci protection sécurité procès ba xam bu dajee woon nag leneen loo xam ne sax du woon yoon dina xam ni mu ci defee ba génn ci quoi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax man maa ngi tudd uh, Roqaya Niang nekk uh, élève ci académie Beaux-Arts sécurité uh, doon ci yëngatu nag ci wàllum sécurité rapproché tey nag ñu doon jeexal suñu formation pour jël suñu ay diplôme mais ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñuy ñaari waajur waaye di gërëm tamit suñuy maîtres yi nga xam ne ñoo ñu yore woon di ñuy jàngal euh, ku ci mel ni maître Souleymane Diallo ak maître Ousmane Sall. di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér yàlla yokk seen xam-xam ci barke Seydina Mohamed ndax euh, vraiment def nañ ci ci ñun loo xamante ni daal euh, fu ñu leen gis ñoom dañuy fier ndax xam-xam def ci ñun. ak yar gi tamit yeggali suñu yar amuñu lenn daal lu ñuy wax lu dul di leen ñaanal di ñaan yàlla tamit euh, xam-xam biñ def ci ci ñun ak tamit yéene buñ añ ci ñun def ko ci ñun yal na leen yàlla won lu ëpp seen yortu te ñun tamit lépp luñu luñ ci am rek yal nañ ko muurloo te mu jig ñëw waaw comme kuy jàng rek kuy jàng moom te xamoo il faut nga am coono il faut nga daj coono parce que ñi lay jàngal tamit dañ lay jàngal pour nga jàng bu baax ba ñu tricher parce que ñoom duñ ay tricheur dañ lay jàngal lépp lu ñu mën lépp lu ñu xam dañ la koy bëgg a jox yéene boobu lañ lay jox yow it da ngay am yéene pour liñ lay jox da ngay gis yéene bi ñu la koy joxe yow nga fexe ba yéene bu ñu la koy joxee nga nangoo ko ak yéene yow it waaw. kontaan kontaan nañ ci trop parce que dañoo xam ne ñoom jàngal nañ te naxuñ ñu waaw te macha allah diplôme bi sa international ba pare macha allah dañ ko sécuriser. merci beaucoup yow tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal ci kaw ci kanam ci lu baax di ñaanal tamit académie Beaux-Arts sécurité ci kaw ci kanam ci lu baax ak képp koo xam ne jaar nga fi rek. ngi tudd Babacar Diamanka. waaw. depuis yan yow jot nañu jox nañu sa diplôme wala joxaguñ la sa diplôme. joxaguñ ma de.